mouvement bi nag li ko tax a jóg dimbali suñuy jigéen ak jàppale suñu jeunesse loolu moo ñu tax a jóg nee naa leen woote bi woote wuñ ko pour di leen xëcc di jëmale fenn woote wuñ ko pour di leen tuddal turu kenn dañ koo woote pour ngeen ñëw ñu ànd liggéey ti loolu lañ leen di woo. boo gisee li tax moo wax ko man dama fi yàgg nekk di politique 2017 ba léegi maa ngi ci dëkk bi di politique mais dama xool chaque élection bu jotee jigéeni Touba. li leen di def mooy heure bu campagne wala pré campagne ñëwee ñu ñëw nax leen bindu loolu leen seen candidat yi recensé leen ni leen dinañ leen jox ay financement bu ngeen ñu votelee ñu rey seen bopp xar seen tànk tubéy dem votel ñëpp buñ paree duñu gis dara loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa war a jeex loolu bokk na ci li tax ñun ñëw engagé wu lépp loo xam si ñoom seen soxla la ñun ñu taxaw ci xar ci suñu tànk tubéy ba lépp loo xam si bëgg nañ ko ñun ñu jàppale leen ci ci loolu lañ taxaw mouvement bi ci loolu la nekk. mouvement bi nag ñun pour l'instant sànni suñu objectif mooy fexe suñuy jigéen jàpp ci dara bala ñoo jàppale kenn ndax nit jàpp naa ne bala ngaa jàppale kenn da ngay am ci loo jàpp ñun suñu mouvement suñu objectif mooy fexe suñu jigéen ñeeg suñu jeunesse beeg suñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi jàpp ci dara. bu ñu paree nag ñàkkul ni dinañ am candidat ndax lu toll nii boo ko yoree di nga am candidat mais nag pour l'instant nii suñu objectif mooy fexe ba suñu jigéen ñi jàpp ci dara ñu xool nañ leen leen tege loxo pousse leen ñu avancé gis seen bopp ci réew mi fépp foo xam si seen i moroomi jigéen ña ngi fay teg seen tànk di fay yëngu ñu ràññee leen ñu ràññee suñu jigéen ñi ndax suñu ay jigéen yu jàmbaar lañ yu am jom lañ mais gis ñu ko leen jàppale li ñu bëgg mooy ku leen di jàppale loolu lañu bëgg fi may gis ci réew mi mooy euh, politique rek yëngu-yëngu yi yëngu-yëngu politique rek te ñun wax dëgg yàlla côté boobu bëgguñu ci di ci sori suñu kàddu lu bëree bëri ndax ñun dafa am loo xam si dañ ko bëgg nee naa dafa am loo xam mooy suñu objectif numéro un mooy fexe suñu jigéen ñi xool nu ñuy nekk à l'aise nu ñuy nekk à l'aise ñun loolu moo ñu yëkkati xam nga dafa am loo xam si dafa simple xam nga nit dañu jàpp ni tey boo yorul yenn yenn moyens yi rek munoo yenn yi gis nga li ñuy wax fii yëpp du xaalis engagement la ak gëm-gëm ak bëgg-bëgg te buñ ko defee ñun lépp loo xam si bëgg nañ ko lu ñu lépp loo xam si bëgg nañ ko incha allah ci kàttanu yàlla ñun jàpp naa ne war nañu mën a atteindre suñu objectif boobu te incha allah ci kàttanu yàlla dinañ ko atteindre. du question que moyens yoo xam danga ko jox kenn mais mbooloo dafa nekk loo xam si bu ñu booloowee rek am li ñu bëgg ci askan wi la bokk. nekkul au pouvoir nekkul opposition ci askan wi moom askan wee ko tax a moom dañ koo bañ dani mouvement taxaw askan wi li ko yitteel dëgg dëgg dëgg dëgg mooy taxaw aw askanam ba lépp loo xam te aw askanam lu ñu soxla la wala lu ñu bëgg la wala lu ñuy téew la mu dem def ko ñu indi leen ko looloo tax a jóg mouvement bi ndax ànd nañ ci non non non troisième candidature ñun mënaguñ cee wax xam nga leen moo tax mënaguñ cee wax ndayu mbili gi xamagul fu muy féete waxagu ci te koo xam si waxagoo ñun xamaguñ lu ñuy wax ci say mbir moo tax troisième candidature moom mënaguñ ci wax. bu ma gisee ni depuis bi mu nekkee ci réew am na lu mu def am na foo xam si am na faay te noonu la état di doxee état da ngay def lii bàyyi lii wax dëgg yàlla boo xoolee ci benn côté mu ngi liggéey mais boo xoolee ci benn côté am na ci loo xam dafa des bu baax li nga xam ne nag moom ñun moo ñu tax a yëkkati des gi mu des mooy li ñu ginnaawal suñu jigéen ñi loolu dafa des li ñu ginnaawal jigéen ñi Touba te loolu noonu. dafa nekk loo xam si ñun dañ ko war a xeex ginnaawal ko suñu artisans yi suñu mbokk chauffeurs yi suñu mbokk menuisier métallique suñu mbokk ñëpp ñoo xam si dañu nekk ci biir dëkk bi di liggéey nekk ay ouvrier yow journaliste yi nga yaa ngi ci terrain bi man de ba ma nekkee Touba ba léegi mosaguma gis benn marché boo xam si état daf ko yëkkati ñëw jox ko artisans yi dëkk bi mosaguma ko gis te ñu ngi koy def ci yeneen dëkk yi mosaguma gis fu état ñëwee recruter Touba biir ci biir Touba ay chauffeurs placé leen ay Dakar dem dikk wala mu placé leen ci administration bi musuma ko gis te loolu lu war a am la looloo tax a jóg moom loolu lay xeex daje mi yow yàgg ngaa couvrir gisoo fi benn homme politique boo xam te koo xam la ñun loolu dañ koy éviter li may dellusi ci mooy li may dellusi ci ñoom mooy nit ki boo amul yar citoyen dëgg du réew du saaga du yàq alalu jàmbur du jël alalu jàmbur citoyen dëgg day gëm boppam un vrai patriote nag laa wax da ngay gëm sa bopp te ndaw ñi dañoo gëm seen bopp fas yéene ànd ak ñoom liggéey boo gisee may lancé message dama koy lancer askanu Sénégal gépp jeunesse Sénégal gépp pour ñu bàyyi yàq bàyyi saaga jéem a def seen bopp yi ci liggéey ndax loo fi gis liggéey moo la koy may loo fi ñàkk liggéey moo la koy xañ dañu nag dañu bëgg suñuy ndaw am ci luñ jàpp mën a teral seen mbokk teral waajur loolu ñu tax a boo gisee lii mu def assemblée générale mouvement bi mu juddee yàgg na mais ñii ñu def ni assemblée général lañ def woo suñuy quelques nit wax leen suñu projet wax waxtaan ak ñoom wax leen suñu programme wax leen fi ñu jëm wax leen li nga xam ne mooy bëgg-bëggu mouvement bi wax leen li nga xam ne fa la bi jëm ak wax leen li nga xam ne ñun moo ñu yëkkati Modou Makhtar Sané responsable politique président mouvement taxawu askan wi ànd ceeg sama yaay Maman Ndeye Ndiaye Khadim Cissé coordonnateur soxna euh, Kine Ndiaye secrétaire ñi ma àndal ñëpp Fama Ndiaye ñoom ñëpp